tey nag seen champion waxoon naa yemut ci làmb ji rek ñiy tëgg làmb yi champion yi la ñu bokk ndax kenn ku nekk la ngay yëngu champion nga ci bëgg doon tey ñu seet si champion bu mag le grand promoteur Serigne Fallou Ndiaye production lay wuyoo ñu bëgg a waxtaan ak moom bari na combat yu mu taxawal malgré Covid bi am na mais am na avance yu mu jot a joxe ba fiisale ko ah, ci saison bii ñu jëm incha allah. ak fi làmb ji toll bëgg na noo waxtaan ak moom lu bëree bëri mais ba lu ñu sori rek ñu may ko mu nuyoo ak mbokk internet yi bu ko defee ñu dugg ci biir waxtaan wi sëñ Fallou nuyu nan la. waa ñu ngi leen di fay di leen ziar di ziar mbokk internet bi yëpp di ziar ñi nga xam te ne ñu ngi dëppoo safoo euh, Bour Gueweul TV di ko seetaan di leen nuyu tamit yéen bu baax di rafetlu tamit jataay bi di rafetlu bu baax émission bi ak dalal ji ñu leen fi dalal tey. Euh, bu ñu déggee loolu Fallou Ndiaye promoteur avant Covid bi di am sax mel na ni am na combat taxawaloon te ba léegi loolu yaa ngi ci. waaw avant Covid bi nag amoon nañ trois journées yoo xam ne war nañ ko def ndax war nañoo def euh, Belende ba Birahim en même war nañoo def doomu Jalaaw ak Boy Niang 2 Maguette Seck nañoo def Ada Fass Tapha Mbeur muy trois affiches yoo xam ne ne espoir yu am solo lañ. ay xale yu làmb am ci ñoom yaakaar la. Mhm. bi Covid bi ñëwee nag ku ne xam na ne Covid bi moom. doole ji àndal. ak pigeon yaakaar naa leen benn activité mënut a mais loolu metti na de ah joxe say avance def fi yëpp après lii am nii loolu lu ngeen ko dundee yéen promoteurs yi. waaw euh, xam nga tey metti na ndax làmb ku ne xam na ne moom euh, matière de business la. tey nga jël sa ay moyens yëkkati ay mbër jox leen ko. ñoom ñu dem di préparer ji yow ngay waajal sa événement ñu dem lu mel ni ñëw. yaakaar naa ni muy méttee ci yow noonu lay méttee ci nga xam mooy lutteurs yi ndax. litre bu ci ne boo ko joxee avance li mu ko def mooy fay ay saal musculation dem wuti ay sëriñam mm-hmm. bon li mu war def yëpp mu def ko pour préparation combat kon xaalis boobu jàpp nga ne toogul sax si ñoom ñoom li ngay daj la ñuy daj mm-hmm. mais nag dafa metti tey nga jël ay budget bu dëgër jox ko ay mbër covid bi ñëw mais doo ko métti lu tax doo ko sañ a métti lu mooy am na ñu mu gën a laal ni ki yow ndax boo xoolee réew mi secteur yëpp a te jàpp nañ ne am na secteur yoo xam moo gën a kawe foofu ci secteur yi ñu nekk. kon duñ def lu gëm yàlla rek nungu ndogalit xam ne kenn teguñu ko suñu boobu moo ñu ko teg. bi mu amee état bi am na yu mu jëloon ngir dàmpee ko ñu mel ni yéen surtout ñu nekk ci secteur informel bi. Mm-hmm. Euh, ndax loolu promoteurs yi gis nañ ci seen bopp. waaw am na ci ay promoteurs yoo xam ne gis nañ ci seen bopp ndax euh, jàpp naa ne CNG bi nga xam ne moo fi jóge woon. amoon na ci ay rencontre ak ministre des ñu xalaatoon nañuy def pour mën a jàppale promoteurs yi nga xam te ne nii amoon nañu mais li li bi ci am rek mooy jàppoon nañ ne bi muy loolu di am CNC bi war naa boo promoteurs yi. Mm-hmm. wala ministre bi boo promoteurs yi. Mm-hmm. ñu waxtaan ci nan lañ xalaatee ne buñ ko defee mu rafet. Mm-hmm. ndax su boobaa dinañ mën a fexe ba promoteurs yëpp. képp ku jënd licence rek di ci mën a gis sa bopp. comme promoteurs yéen da ngeen a booloo jiital président. est-ce que woowoon président bi laaj ko. mu mu mu xam promoteur yëpp waxtaan ak ñoom loolu gën doon yomb. waaw loolu moom vraiment moo gën a yomb ndax tey président bi muy président Pape Abdou Fall. jàpp naa ne moom ñun ñoo ci bokk yem rek. ndax nee naa la bi fi jógee ñoom ñoo waxtaan ak euh, autorités yi muy ministre des mm-hmm. bi ñu waxtaanee ñu xool nan la ñuy jàppalee promoteurs yi. Mm-hmm. jàpp naa ne loolu li gënoon mooy ñëwoon promoteur jamono jooja. waxtaan ak ñoom. xool nan lañu mën jàppale promoteurs yi bu ko defee promoteurs yi nañu wax danañ génne seen ay point de vue wax li nga xam ne moo leen moo leen moom lañ bëgg mu doxee nii jàpp naa ne su boobaa dina gën a yaatu ba ku ne rek ci mën a gis sa bopp ndax tey promoteur bi nga xam ne daggoon na ak promoteur bi régularisé yëpp benn lañ li tax ma ne benn lañ mooy kooku ñàkkul ne am nay combat am taxawal na ko ba joxe na xaalisam mais régularisé rek moo ko woon du seen coobare ci coobare ng la kon war nañoo mën a xalaat ñooñu xool jàppale ndax it CNG bi xamoon nañ ne loolu amoon na xamoon nañ ne am na ay promoteurs yu ñëw yëkkati seen question joxe ko. Euh, ku tey dagg licence kon tey ñu xam nañ ne pare woon nañ pour dëgg làmb tey am nañ ay combat yi tax ñu joxe caution boobu. Mhm. kon jàpp naa ne war nañoo mën a xalaat ci ñooñu ñoom CNG ba waxtaan ci ba nga xamante ne nii ku ci ne rek di nga ci mën a gis sa bopp ndax jàpp naa ne tey promoteur bi dagg licence tey daaw am nañu dagg ay licence tëgguñu làmb ba tey. ñooñu buñ ne Covid bi laalu leen dañuy wax lu neex. lu mu néew néew ah weccet la. non di nga ko daggee trois cent mille francs. trois cent mille francs sax seerul mais ses bi def nañ ses ndax pare woon nañ pour organiser événement. pare woon nañ pour participer. Hmm. kon yaakaar naa ñooñu tamit war nañ leen mën a xool lu leen dimbalee jàppale leen ko bañ mën cee gis seen bopp. Euh, jërëjëf mbokku internautes yi ah, Fallou Ndiaye promoteur ngeen am tey. Euh, bu ngeen déggee ni mu waxee xam ne li muy wax lu mu lu mu miin la ndax ci biir la nekk mais ñu dikk ci biir Covid bi euh, wàññeeku woon na yàlla dogal na nee na mi ngi yokkuwaat yàlla na fi yem te bu mu amati. mais ñu dégg ñuy dégg ay rumeur ñu wax ne ministre bi nee na euh, bëre bi mën naa am mais ñu def ko en huis clos yéen ñi génne seen xaalis en tant que promoteur ndax loolu dina leen arranger. xam nga loolu moom moo ko dégg ay la may def. Ah, ndax lan <laughs> li tam may def ay ree mooy lambo. ak <laughs> benn sport bokkut lambo football bokkuñu. dëgg la xam nga Fallou Ndiaye du génne ay millions. waaw ñëwee di ubbi stade bi noonu. ñi mbëri rek la soxla pour ñu bëri dem ñibbi kon li may fay mbëri fan laa jëlee samay samay rentabilité. billet yeeg yooyu. yooyu fan laa koy mën a gérer te lamb ji ku ne xam ne amul sponsor. waaw billet yi da ngay négocier pour mu sotti. Mm-hmm. alors nga bëgg ne da ngay tëgg lamb ji huit kilos yow kenn du nekk ci stade ba. nga fay stade fay fee d'organisation CNG. fay mbëri. ñëw dëgg laa mujj noonu nit ñi gars yi seetaan huit kilos gars yi ñëw seetaan dèjà sa reporter yi mën su kii mën nañu ba ñëw yooyu moom doo sax wax ju ju nit mën a dégg pour man. njàpp naa mënta ne te du ne. mais loolu dañ leen cee woo waxtaan wala da ngeen koo dégg rek. ñoo yéen ñoo ci am man de li ngeen ci dégg rek laa ci dégg damay dégg ci rajo information bi rek yaakaar naa amul benn autorité boo xam ne nii woon na promoteurs yi pour waxtaan ci ak ñoom. li nga ci sax ñoom liñ ñoo ko wax sax ndax gëwuma ne ñoo ko wax ndax jàpp naa ne wax jooju eh, xalaatuma ne ñoom am nañ sañ-sañu wax loolu pour man. Ah, lu tax ah non damaa xam ne ñoom bu doon ñoom duñ ko def rek li nga nit moom da ngay jël mbir nga ko sa bopp rek. jël say kenn jël ay millions di ko taal mbaa nga koy sànni ñoom bu doon ñoom duñ ko ne la xalaat naa est-ce ñoo ko wax nag ñoom xam naa fi ñu koy teg waagaan peut-être que mooy làmb est-ce que neex naa respecter mesure barrière yi tamit. non si euh, boo gisee maa ngi koy wax ci journal bi tey euh, làmb mbir la yoo xam ne gis nga àdduna lépp loo gis dañ ko organiser lépp loo mu organisation du dem tey làmb mën nañ ko organiser noo xam te ne nit ñi mënuñu ñoo seetaan si làmb làmb jeex ku ne ñibbi si jàmm c'est-à-dire nag boo gisee loolu lépp organisation lay laaj dañuy exiger promoteur bi mu dem wuti ay selam exiger ko mu dem wuti ay masque ñëw teg alors arène nationale bi yaatu na yaatu boo xam te nii mën nañ ne le gros combat yi dafa am limite bu leen di yemale li ci des mën nañu ko def pay-per-view état bi xoolum jàppale mu jàppalee promoteur yooyu loolu mën naa nekk les petits combats ñu ne au lieu que stade dañuy ubbi si kaw rek dañuy ubbi suuf rek dañuy ubbi fépp léegi benn day toog ñu teg benn sées ci di dëpp benn sées beneen di toog na le mën nañ ko def ba stade bi fees wala du fees buñ paree tamit wàcc bi ñibbi bi ku ne takk say masque jeunes yi ñu fa teg sécurité bi ñu fexe ba nit ñi di wàcce noo xamante ne nii kenn du ma laal sa morom te loolu lépp la te buñ ko organisé jàpp naa ye man naa nekk ndax nit ñi ñooy dem ci méthode boo xam ne ni ñooy xam ne àdduna moo toll foofu mm. jamono moo toll foo xam ne ni ku ci ne da ngaa war a moytu sa morom ku ci ne war a daw sa morom pour bañ jàngoro ji dal la mais yéen promoteurs yi di ngeen nangu bu stade bi jël 3000 places mm-hmm. ñu wax leen na ngeen ko yemale 1500 places ngeen mën a respecter mesures yi xam nga national ñu ngi ne mille places la 22000 la ñu wax su su ma juumul 22000 alors 22000 places ci événement yu ndaw yi yaakaar naa li ma wax léegi leeroon na événement yu ndaw yi. Euh, du ñu am sax dix mille places du ñu am sax dix mille. dix mille personnes du ñëw ci stade bi. alors ñooñu tey jii bu ñu nee la bu ñu tegee benn personne dëpp benn sées tegaat benn personne dëppaat benn sées nit ñi mën a ñoo toog noo xam te ni dinañ am distance te ni ak arène nationale lañ ko liggéeyee presque distance bi dama un mètre. kon jàpp naa bu nit ñu toogee noonu mën nañoo dund li ñuy dund ku ne li ngay bëggee ñu ñibbi. alors wala état bi ne promoteur yi billets yi dañ koy def ay bii yoo xamante ne nii au lieu que mu yomb dañ koy def ay billets yu cher yoo xamante ne du permettre képp ku war a ñëw rek séance nga séance nga xam ne lamb dañ koy yóbbuwaat ci beneen niveau xam ne loolu Covid bi moo ko indi mais su fekkee ne dañoo bëgg a baale lépp bloqué lépp dina bari ndaw ñoo xam te dañ sonn ci réew mi trop ndax yaa ngi dégg Barça ba sàq ji te yaakaar naa li ko waral mooy fii réew mi toll kon daal su ma la déggee ba léegi daje amagul ci diggante ministre bi ak promoteur yi wax dëgg yàlla de li wax ji bari bari depuis bañ joxee ñun suñu fonds bi nga xam ne moom la doon jàppalee ci Covid bi ba fi may wax ak yow ministre bi mos mosuma dégg ñu ne woolu na promoteur yi wax dëgg yàlla pour waxtaan ak ñoom ci làmb wala pour waxtaan ak ñoom ci dégg ngeen ko mbokku internet yi ci làmb la bokk duñ waxtaan ak moom ba bàyyi te ñu ko ci actualité semaine bi passé diggante coow li Lac de Guiers Eumeu Sène en tant que promoteur est du ngeen di conseiller seen rakk yi ndax ñoom seen ay rakk ngi lañu yenn wax yi ñu koy éviter ngir ñi ngi naan làmb ji yàqu na làmb ji dafa dee te am na yoo xam ne mën naa gën a rey làmb waaw xam nga buñ doxante dëgg rek mag mu ne sama bopp nga ndax boo xoolee tey mbër yi wax loolu ñun maguñu leen même âge lañ nekk même boo xoolee ci at benn at magante ñaay ay moom lañ wala ñoom ñu mag ñu am na ci ñoom la ñooñu mag fuuf sax mm-hmm. kon jàpp naa ñoom buñ nee ba nekk ay mag tool am fi ñu toll ci niveau yi ci niveau xaar nañ leneen ci ñoom loolu ay xastante xaar nañ ci leneen ci lu ñoom ay saaga mais nag nit day juum nit su juumee nag jéggalu wala ay mbokkam jéggalu kim tooñ kin tooñ du man loolu jéggale ndax fii jéggale ak jéllale moo fi am jàpp naa ne daal ñoom sampion yu mag yooyu war nañoo mën a loolu ñoom ñëpp nag laay wax waxuma kii ñi am problème ak ñoom dama ne mag yooyu war nañoo moytu lu mel noonu ndax bu ñu xoolee tey jii li wa yenn sponsor yi li ko dàq ci làmb ay coow yu mel noonu am bokkoon na ci kon tey jii jàpp nañ ne ñoom xaaruñu lool ci ñoom leen xaar ci ñoom ñu nekk ay nit ñoo xam dañuy éduquer seen ay rak di leen jàngal loo xamante ne seen ay rak bu ñëwee di ko taale rek day yomb mm-hmm. mais bu ñu leen fekkee ci ay xastante ak yenn wax yi kenn du ko rafetlu ndax làmb làmb la vie privée vie privée la ku ne say vie privée na nga ko gérer sa bopp mais làmb dañoom am combat nañ am seen combat bëre seen diggante mu jeex man noonu laa ko gisee mais daal vraiment kenn rafetlul wax ji mais comme ñi tooñ jéggalu nañu. ah ñu wax kii ki nga xam ne moom lañ tooñ mu jéggal leen ñu dox ci leneen kon ne seen làmb kon ne seen yeneen yemale fa wax ji mu jeex. jërë jëf euh, mbokk internet yi yaakaar na liñ fi waxtaanee dina leen jariñ dina leen neex ndax bari na ay point yuñ souligné ñu bàyyi ko rek mu tàggoo ak mbokk internet yi fàttali ñu yan date la taxawal ak yan yan mbër la combat la taxawal ci saison 2021 bii ñu jëm. waaw mais ñun combat yi ñu taxawal mu ngi nekk comme ni ma la ko waxee Boy Niang 2 doomu Jalaaw Belende ba Ibrahim euh, Papa Boy Djiné ba Bismi. Euh, Mor Kang Kang ak ki xam ne mooy Caatu Yëmbël mhm. euh, ki nga xam ne mooy Tafa ak euh, Ada Fass mm-hmm. muy affiche yu am solo di ay mbër yoo xam te ni yàpp naa ci espoir yi Sénégal bokk nañ ci espoir yi nit ñi gën a jox bopp mm-hmm. di nuyu tamit suñu grand suñu mag yi bi nga xam ne moo toog laa am njóobeen am na problème non heure bi daf may lu fi nekk su ma ñëwee ay ay ay fekk ñoom seen yooyu am nga njóobeen dañoo doy waaw ànd ak moom am nga problème nii moom li ñuy def ëpp na di ko nuyu bu baax di nuyu njaboot njabootam yëpp uh-huh. di nuyu famille lamb yëpp nag wax dëgg yàlla di rafetlu bu baax tamit interview bi di ziar buur géwél bu baax seen xarit seen waaye di ko wax ziar naa ko màggal ko di ko ñaanal seen bi yàlla na jëm ca kanam lim ci séntu moo ko xam yàlla na ko suñ boom yombal te defal ko ci xéwal yu am solo di nuyu ñëpp di nuyu sénégalais di ziar mbokk internet yëpp wax ne wax ji moom bu lëndëmee ñun suñu tolluwaay la rek su mm. rafetee tamit suñu tolluwaay la rek di ziar ñëpp di màggal ñëpp jërëjëf euh, waagaan noonu mu ko waxee Fallou Ndiaye ngeen amoon tey euh, promoteur bu mag ngeen gis ko bu tëggee combat ni muy mel may wax ne moom amateur la laata muy nekk promoteur ndax ni muy taxawalee combat yi ko gis xam ne ku xam làmb la macha allah ñuy ñaan rek ni mu ko waxee feebar bi gaaw jóge fi ba delluwaat ci activités yi ndax yàkkamti nañ ko lool. tey nag waagaan laa àndaloon comme toujours rek seen mbokk seen xarit Mbaye Diop sponsor bi ni ma leen koy waxee Serigne Mbacke Madina Couture la fee ca bayaalu CFA aboo wàdd hmm, ak Khady Gueye Cité Fadia ñaari sponsor yooyu ñoo fi amagun ñaar ñooñu ñoo ñëwagun aboo wàdd Serigne Mbacke màddina Couture bayaalu CFA jërë ngeen jëf